le Sénégal industrie pétrolière. Mm-hmm. di ko jaale Sénégal yëpp di ñaan yàlla mu xaare ko àjjana. Mm-hmm. Baba Diaw dafa di figure de proue bi nga xam ne dafa marqué surtout activité pétrolière fii au Sénégal parce que mm-hmm. c'est un pionnier. c'est un des pionniers principaux pionniers de Petrosen c'est extrêmement important de souligner cela. ci fi Sénégalais yi. newul woon ci jamono boobu xalaat ni foofu yoon la moom foofu la gis yoon ba jaar fa. ba tey mu nekk kii nga xam ni moom mooy un des principaux pionniers de ce métier là donc ñu ngi koy jàllee njabootam yëpp di ko jàllee Sénégal yëpp jaa ngeen jëf merci. macha allah am na solo bu baax a baax bu ko. Baba Diaw Itok euh, bàyyee ko fi niki niki démb ñu jaale ko ay mbokkam ak i ak i jegeñaaleem yëpp. Euh, di ko ñaanal euh, yàlla xare ko aljana. Mm-hmm. mu nekk koo xamante ni Sénégal moo perte. Mm-hmm. Thiès moo perte waaye Sénégal aussi moo perte. ndax euh, fi nga xamante ni euh, commissaire a nga koy wax euh, ku fenn xelam demutoon moom dem na fa. Mm. ba samp li mu samp. Mm. tey doomu sénégalais yu bëri di ci gis seen bopp. mu nekk koo xamante ni ci ay seede ku am kóllëre ku am wóllëre koo xamante ni fàttewul démb waaye fàttewul aussi ay cosaanam. Mm. waaye baaba Diaw itamit kenn mësu ko dégg ci ay scandale yu ni mel nga xamante ni. li ñuy wax boo arrivé mbaa nga tekki ci réew mi. du yow mbala sa njaboot du ñàkk ay. coow wër leen topp waaye ku mel ni baaba mhm. lu mel ni yàlla musal na ko ci ndax mhm. du ndamam yàlla mooy dimbale doomi aadama mhm. yàlla dimbali na ko nag moom euh, ba nga xamante ni tey wax dëgg fa yàlla Sénégal yëpp ñoo ñàkk ñu koy jaane askanu Sénégal ki baadama macha allah am na solo bu baax a baax Anna sàmm Euh, comme le commissaire Keita wax rek euh, mhm. li euh, monsieur Keita wax mu di une très grande perte pour le Sénégal mhm. nek une très grande perte pour Thiès Baba Diaw fondateur IDROC mi ngi koy wax tout à l'heure mhm. ci walu pétrole mom mo bind texte yi nga xamante ne ni moom régir li nga xamante ne ni moom moo di Baba Diaw nek un magnat du pétrole nek un pionnier dans li ñuy les hydrocarbures mais nek également un média médiateur nekk un régulateur gis nañu tank yi nga xamantene ni euh, dox nako ko euh, Idrissa Seck ak ki nga xamantene ni euh, mom modi tal Talla donc nekk un homme d'une très grande générosité un homme modeste humble malgré le fait que ñuy wax ni il fait partie des gens les plus riches wala boog il fait il est l'un des gens les plus riches de l'Afrique un homme d'affaires bo xamantene ni def na lu bari pour le Sénégal mais également pour l'Afrique donc a participé considérablement ci li ñuy waxé li euh, la formation mais également euh, la réduction du taux de chômage ndax amna lo loo xamante ne taxawal nako ay ndaw Sénégal yu bari di ci gis sen bop donc ñi ngi koy encore une fois ses proches sa famille ak euh, Sénégal yépp ak waa macha allah am na solo bu baax a baax donc moom jaw Diaw itok ñu jaale war ko bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ay jegeñaaleem di ko jaale ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Thiès waaye tamit di ko jaale waa Sénégal de manière générale mu nekkoon benn emblème mu nekkoon benn monument ci euh, réewum Sénégal def lu ne def fi euh, jaloore bu am am solo di ñaan yàlla suñu borom rek fa mu jëm gënal ko fuuf fi nga xamante ni la euh, bàyyi ko ñu nag soobu dugg ci suñu waxtaan daal di koy tàmbali monsieur Keita ak saisie récurrente de la drogue bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci réewum Sénégal Optiris ci euh, euh, communiqué bi mujjee génnee mi ngi estimé alal bi nga xamanteni donc drogue bi am ko ci diggante 2022 ak 2024 mu ni euh, mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko c'est-à-dire mi ngi ko estimé ci diggante 400 à 700 milliards de francs si suñu si suñu koppar day wane tout simplement que drogue bi amna ben benn ascendance bu mu am ci ci réewum Sénégal. waaw drogue fay phénomène bi nga xamni mhm. tous les ans fait occuper une bonne partie de l'actualité à cause de d'événements yi nga tous les ans depuis quelques années depuis je peux dire 5, 6, 10 ans tous les ans nous avons des saisies records des tonnes de drogue des centaines de kilos et loolu effectivement justifié que ci diggante bii ñu ñu euh, cette estimation de plus de 400 milliards de francs CFA qui nga ramené à la drogue la c'est parce que d'abord considérons considérer drogue li mu La drogue une matière particulière bi nga été métier mais la parce que en général métier ordinaire daw la dañuy yor ay gànnaay dañuy dugg ci de dañuy voyager pourquoi parce que parce que li def dafay en général nag lu souvent métier yu mel noonu day noonu métier xaalis ba tax na drogue koy euh, ba koy consommer zone yi nga ne xaalis fay bari phénomène boobu nag moo jékki-jékki daal di law fii law bi depuis les années 80, drogue parce que Sénégal am na fi ay tradition wu drogue yi nga xamni bon diggante Sénébar ak Yamba am na fi ay tradition yi nga xamni ñoñu ñoñu ñooñu mag ñun ñi ñoo mag sax ñu nu mag ñun ñi ñu ngi fàttaliku histoire yu yaa dikkoon histoire buntu cinéma yi nga xam ni mu ngi nekk fii Dakar nga xam ni c'était lié comportement yi nekk foofu dafa lié woon à la consommation de la drogue mais drogue boobu yëpp Yamba la.

il fallait que nga nekk ci secteur humain drogue di première personne Nous dem di dem phénomène tourné pourquoi parce que commerce Le commerce bi nous c'est des narcotrafiquants Nous avons sommes rek lañ koy nous zone après les années 2010 sous zone période de trouble instabilité bi nga que que nous avons indi nous li zone considérer que ni yoon yi nga xamni ni drogue daf fay jaar pour dem Europe ak dem ci grand marché yi war na mën jaar fi tant ci distribution bi fi en Afrique que pour nan lan tay yele conditionné que yóbbu ko à l'étranger ñu dem ba mu am fi un triangle bi nga xamni so soo ci lëkkalee Maghreb bi ak le Maroc nga jël Sénégal jël Nigeria, euh, jël nigeria jël euh, comment dirais-je encore euh, Ghana da ngay am un triangle d' activité bi nga xam ne seen histoire par rapport ak drogue dafa yàgg ci drogue bi nga xam ni yàmbaa la ba yeneen drogue yi buy développé day ñëw foofu nga jël ci nag réew yi nga xam ne ñoo ñu wër nga xam ne seen ay frontières baaxul ak réew yi nga xam ne seen système de sécurité baaxul comme ay Guinée Bissau même Mauritanie bii ñuy wax ak yeneen nga xam ne dañ koy négligé mu nekk environnement bi nga xam ne su fekkee insécurité daf ni comboy depuis bi nga xamee ni euh, rébellion comment terrorisme bi dugg na fi dafay am ay couloir ay corridor yi nga xam ni Euh, narcotrafiquants dañ koy investir pour mën a jaarale foofu seen marchandise nak di développer sen comportement lu ngeen gis fi ñu japp ko fi li nekk ci gannaaw moko ëpp parce que bu continuer di nekk ñom en activité di perte quelque part di fa continuer di def perte yi nga xamni mom lañ fi def indicateur lo donc pour woné ampleur catastrophe drogue bi fi c'est ça qu'il faut comprendre ça ne veut pas dire que li ñuy japp amul solo mais ça veut dire tout simplement que plus ñuy avancer plus yoonu drogue yi nga xam à l'étranger fii lay jaar pourquoi parce que narcotrafic suñu suñu nous ba installé un système dañ koy Sénégal on a toujours posé la question est-ce que nekkul plaque tournante le phénomène est beaucoup plus complexe que cela et cela appelle de la part des autorités de redéfinir ce problème afin d'aller vers des solutions qui peuvent permettre de contrôler ça

Donc utilisé. utiliser on ne va pas chercher la solution d'un phénomène comme ça ci ñaata la ñuy tëj ñaata la ñuy tëj dañ ko criminaliser wala criminaliser wuñ ko mais dafa fekk rek ni daf ci bokk am na ñu dem ba di proposer naan est-ce que par exemple du ñu bàyyi nit ñi di tox seen yàmbaa comme il se nous nous leen neexee c'est ay glissement yi nga xam ne la dafa nekk ci gestion au phénomène bi et lolo de quoi on considérer en tenant compte de nos réalité pour cette lan lan war aide faux. def fofu, man gëmuma bobu piste pour l'instant mais criminalisation bi wax il ne faut pas que nous négligions que comme moyen parce que dafa am ni nga xam au moins pour nous neutraliser len, sur la durée il faut que nga tek ay peines nga xam sori pour que même vous l'en dissuadez wul soo leen nga sur la durée Ni nga xam ni xaalis bu bari la ñuy def ci drogue c'est de grands délinquants et moi je, je suis d'accord pour que li ñuy teg ci sen kaw suñu len jappé nek ay peine yi nga xam ay peine yu forte la même si ça l'en, bu len bu len dissuadé wu ñom ci souf dina am effet ci yeneen génération yi nga xam ñom ñoom ñoo lalu ci souf ñoo dinañ dissuadé ensuite nak maintenant ñu jëm set nan la ñuy articuler pour maîtriser phénomène bi et pour lui appliquer des solutions qui pourront nous permettre de, de contrôler ses effets sur les populations parce que phénomène drogue loolu la du drogue bi ci bopam ngay daan parce que fi muy joggé sori né day bëru mu ba agsi mais il faut nga taxaw

trafiquants yi dañuy natt dañuy natt parce que ay businessman lañu su fekkee ni ci situation présente bi fii par exemple am na situation d'instabilité muy ay yëngu-yëngu ay perturbation wala réew mi di doxee ni nga xam ni attention yi ñu ngi feneen ñoom ñoo xam ñoom ñuy apprécier yooyu ah, pour xam yan opportunité ñoo fi nekk peut-être l'une ngay wax instabilité je ne sais pas ñoom ñu ngi koy ñu koy wala moment yooyu nga xam ni les sénégalais sont focalisés sur des élections sur des machines, sur des cela Nous ñu ngi koy jëlee ci seen tramo stratégie moment yi nga xam ni par exemple nit ñi jambat gi bari de fi, nit ñi amuñu xaalis ainsi de suite Nous y avons nu ngi koy jëlee nga xam ni fragilité euh, administration bi avons nu ngi koy jëlee ba recruter parce que nous du mu ñëw rek jël seen saaku def dafa am un appareil de trafic bi nga xamni lu nekk mën nga ci fek taalibe bi nga xamni muy tok ci buntu boutique bi fii di yalwaan mën na nekk un élément de cet appareil de trafic ki nga xamni restaurant la yoré mën na ko nekk mais ki nga xamni kilifa la mën na ko nekk ki nga xamni ni la sax mën na ko nekk ki nga xamni ni mën na ko nekk donc yoyu élément yeb ñom dans leur stratégie ñokay brasser motax tax ni il faut qu'on revienne à mieux cerner ce problème là pour mën ko faj on a vu récemment hein, des fils du pont de la République Le ñu tek ci euh, euh, Sénégal dañuy wax du pays consommateur de drogue est-ce que ça explique que nous sommes ay porteurs de valise non non le Sénégal est un pays consommateur de drogue la consommation de drogue de feuilles, n'est que nga xam ne na fi que depuis très longtemps depuis que nous avons dur je veux dire ah bi cinéma rek ngay gis ñuy wax ceci cela la mais sur marché nous un marché structuré parce que zone boo jël rek quartier yi nature population yi dañu am type de comportement par rapport à la drogue et nous de de dafay complexifié ou zone rek génération bojel de forme am ay tibou drogue consommer et le livre ça participe de la diversification de ce marché de consommation donc de ce marché de de de de de, trafic de drogue ñi nga xamni ne ngay tudd nak di wax ay proche du président ou ceci cela on allait tout à l'heure ni man am na ñukoy yag wax la ay consort di wut ci entourage ñi nga xamni ñoo pouvoir bi par exemple porteur de valise ou comment dire encore euh, euh, comment dire encore diplomatique, euh, euh, valise diplomatique, des trucs comme ça. Ça, c'est des vues de l'esprit. Mais il faut beaucoup de choses par force, nous avons lutté contre la drogue, nous avons des indicateurs, nous avons des dispositifs dispositif bi nga prendre en compte toutes ces questions là en dehors d'une idée ça c'est très cinématographique mais c'est trop sérieux il faut comprendre que autant mën nga jàpp un alkaati fii ci commissariat bi mu nekk complice trafic de drogue Autant Mendedia, pour un général, c'est arrivé en Guinée-Bissau. On a eu ces problèmes, c'est arrivé dans d'autres pays, c'est arrivé aux États-Unis, en France. En France, on a pris à Marseille un chef de police qui était impliqué dans des histoires de drogue. L'autre, de De là à dire maintenant que ni, n'est que dans l'appareil gouvernemental, de nous impliquer le jour où on aura un cas sérieux, nous traiter de mais c'est une hypothèse possible. Parce que troc yi tamit day utiliser couloir boo gis rek lu mën na fa jaar daf koy utiliser déjà ñii di dem ay ñii di def yenn activités yi nga xam ni dañuy dem di dellu si dañ leen di surveiller di leen identifier di leen ficher di seet ku ñoom sa point faible ak lan lan na mën utiliser donc s'il y un grand fonctionnaire qui a un comportement dispersé bi nga xam ni ñoom gis nañ ni kii kat mën nañ koy utiliser ils peuvent en faire un passeur ah ça c'est certain maintenant ça c'est des hypothèses qu'on pose parce que liggéey bi noonu lay demee loolu mooy tax ñuy jàpp fii di jàpp fii loolu mooy tax benn bi seen nga dégg ñu ni diw de ainsi de suite c'est parce que nous poser ay hypothèses hypothèses yu ñuy def ay contenu di analyser ba tomber ci dara situation la situation est catastrophique euh, quand on dit par exemple que 200 milliards d'investissements euh, dans l'immobilier au Sénégal euh, est-ce que quelque part ça fait pas flipper situation catastrophique mm-hmm. d'accord pas catastrophique. C'est l'alarmisme là est consomme, ne nous aide pas à régler les problèmes. De nous dire les choses très au sérieux. Parce qu'effectivement, de nous, nous comme avant. On ne parlait pas de recyclage, de blanchiment d'argent de la banque au Sénégal. Vocable, journalistique policiers, jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Réalité, effectivement, dans le domaine immobilier, c'est plus grave que ça encore parce que tu comprends le rôle phénomène yi nga ne mesurer mais qui souffre, souffre, doit avoir xam conséquence incidence le petit trafic de drogue et consort dans les quartiers ndax incidence dans le domaine de comment encore du blanchiment mhm. donc dans le domaine de la création d'immeubles de biens particuliers dans le domaine de la restauration dans le domaine de création de commerces divers là et consorts mhm. pour nous recycler les xaalis nekk ci couloir yi nga blanchir comme normal donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est tout simplement ceci. Effectivement, le Sénégal est en plein dedans. Mhm. C'est à l'État et au service de l'État mhm. de prendre ça très au sérieux mhm. et de considérer que sous que contrôle normalement, ça va aller à sa Il faut les gêner. Et l'État doit les gêner. Il faut les gêner. La police, les douaniers, les gendarmes, les magistrats, tout le monde doit travailler à les gêner. Moi, je ne crois pas, comme je dis à l'alarmiste, je crois à la manière très sérieuse de considérer les phénomènes et de dire ce qu'il faut faire parce qu'on sait que c'est sérieux. mais mm-hmm. euh, mm-hmm. Adama may ma ko mm-hmm. tuuti rek au delà de la drogue bi nga xamante ne ni ñu ngi dégg ni ñu ngi koy jàpp cocaïne ak yu ni mel am na ci euh, yeneen euh, stupéfiant yoo xamante ne nii ndaw ñi moom la ñuy faral di utiliser lu ci mel ni ay source ay volet ak yu mel noonu mu nekk loo xamante ne nii dafa accessible est-ce que lan moo indi justement phénomène boobu ak yan mécanisme la ñu war a mën a teg pour wàññi accessibilité bi nga xamante ne nii ndaw ñi am nañ ko ci produit yooyu Beaucoup de ci de dispersion et influence globalisation mondialisation l'accès à l'information l'accès à des modèles l'accès à des types de comportements à travers ça le téléphone aujourd'hui on filtrage de nga efficace suffisamment pour qu'en fonction de tes besoins en fonction de ton âge en fonction de tes aspirations et de tes déviances nga mën a jot information parce que de grandes personnes sont intéressées par le trafic ndax de grandes personnes sont intéressées par le trafic c'est des gens qui ont grandi avec la drogue dans la consommation ce qui qui que plus des mag, plus souffert tant que plus ce comportement de diversifié ou des varié ces drogues de synthèse ces drogues intermédiaires du pourquoi Parce que des fénènes nous créons que fénènes. par exemple, le volet, c'est une drogue qui nous vient d'ailleurs. L'ENEN, c'est une drogue qui nous vient, ce n'est pas fabriqué ici au Sénégal, mais c'est accessible ici. Pourquoi Parce qu'il y a ça, d'abord l'information, mais aussi il y a ce qu'on appelle le phénomène de la démocratisation de la drogue, du fait de se droguer. De faire démocratiser. Parce que si nous avons Yamba, yag na fi yag mais en général les populations qui flirtent avec euh, euh, le yamba ce qui est ba pas sax sans yoo ci jël de naa 90% ni ils redeviennent ils rentrent dans les circuits normaux ce sont les grandes drogues les drogues de synthèse les ay dérivés ce sont ces drogues là qu'il faut contrôler effectivement et ce nga est ni clairement c'est la mondialisation c'est aussi le fait que les trafiquants dañuy taxaw ci moment bi d'abord il faut ñu am variété de marchandises ñu variété seen loxo ñu nekk ci mais aussi suñu jëlee par exemple cocaïne ñu liggéey ci ba mu suufee suufee am limite bi nga xam ne ko dépasser pour que mu accessible ci ñi am ñetti dërëm te drogue jaaykat drogue ni muy jaayee am un million noonu lay bëgg a jaayee am vingt cinq francs c'est ça la démocratisation ñu dugg nag ci ay couloirs yi nga xam d'abord par rapport au type de population am na ay aspirations yi nga xam ni ñooñu leen koy réserver ñi am xaalis tuuti wala ñi bugg fo tuuti wala ñuy dugg ci situation mais am na drogue yi nga xam ne essentiellement dafa pour que ñi amul lu bari mën cee jot te am conséquence du point de vue de la consommation comme ki nga xam ni dafay utiliser 10 000 francs pour se chuter yow da ngay am 100 francs ñu jaay la drogue bi nga xam c'est un moyen c'est un une drogue intermédiaire qui est plus dangereuse sur ta santé mais daf lay permettre de chuter comme celui qui a 10 000 francs. macha allah am na solo <coughs> directeur donc est ce que vous nga vous drogue c'est à dire nga nga saisir euh, drogue boo xamante à dire affaire à dire surprendre à ce à ce point. pour j'ai participé à de grandes saisies de drogue. Hmm. quand j'étais à l'occultisme mais c'est approche du quoi. Vous savez, quand tu fais une carrière de 30, 40 ans hmm. dans des métiers comme cela, hmm amuloo amuloo amuloo réflexe par exemple euh, nek dans des émotions. Mhm. tu es dans le temps de l'action Tu le tiens tu retiens simplement que c'est des des saisies de par exemple tu pars sur le train là et ça tu prends ben remorque bi nga xam camion bi nga mhm. y' a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mhm. de de de de de prendre là-dedans Fou de fou, fou si complexité comportement bi loolu boo intéressé. Mm. nga jël benn saisie par exemple un seul kilogramme de cocaïne liquide transformation du nu phénomène bi foofu nga koy décrire. Mm-hmm. les quantités ne sont pas des indicateurs forcément. de la complexité du comportement. c'est le type de réseau. Mm-hmm. le type de comportement. Mm-hmm. les modes d'opérer opérer. ñun loolu ñuy fasciné. et par exemple li par exemple. Qui def drogue bi ci biir bi bien bi nga xam ne dañ koo transformé def ci ay cash ainsi de suite les superpositions de marchandises yi nga xam ni. Hmm. moom def pour éloigner bëtu ki nga xam ni mooy contrôler hmm. ci fi nga xam ni fa la nekk ñun je crois que si dimension la ñuy gën plutôt que sur. Moi, je n'ai jamais été fasciné par une quantité de, mm. drogue saisie, mais par les modes d'opérer mm. de trafiquants qui ont eu à mm. dissimuler de la drogue de différentes manières. De nga à dissimulation de la jusque dans le ventre d'animaux qui traînent. Mais faites-vous, tu fais inculgider de la drogue sur un animal qui traîne. des trucs comme ça les trafiquants ils n'hésitent pas à le faire. donc ça xel à taxaw sur les routes par exemple détail dans ton environnement. Mhm. en situation de mobilité. Mhm. de cache. et quand tu réalises quelque mhm. chose comme ça euh, dans des situations comme ça. quand tu réalises quelque chose comme ça c'est ça un exploit. un exploit un exploit. voilà question gi nii dañ koy faral di évoquer euh, par rapport ak euh, saisies récurrentes yi est-ce que justement mën na expliquer euh, saisies yu yu bari yi ñu def ci wàllu drogue. daf ciy participer bu ko expliquer tout seul parce que trafic bi c'est un comportement. Mm-hmm. ci besoin yu kiy trafiqué ak fi mu koy yóbbu. Mm-hmm. foofu la lépp mooy siège yu lépp. les frontières maintenant comme je l'ai dit y ay endroits yi nga y ay barrières à franchir le pour qui nous ni structuré qui nature donc sonné les frontières sont poreuses ça veut dire qu'il y a une décrire nature frontières yi nekk fii elles sont poreuses pourquoi parce que c'est une délimité d'abord. matérialisation De femmes am ay éléments qui nga pour que nous mu opaque. Elles sont poreuses parce qu'elles sont mal surveillées. Mm-hmm. Elles sont poreuses parce qu'elles sont très grandes mm-hmm. par endroits te amuñu ay postes yi nga xamni donc def nañ ko fa ak personnel bu suffisant pour le faire amuñu ay jumtukaay yi nga xamni tam dañ ko fay tek mhm. comme des instruments de mobilité amuñu tamit des ay yu prévention comme de l'armement ainsi de suite ainsi de suite lolu nous moy ni nga xamni ni mo nek ci les frontières qui sont poreuses mhm. ça rentre maintenant globalement dans le phénomène pour qui trafiquer dina ni ah à cet endroit là comme le Sénégal à ses voisins effectivement les frontières sont poreuses mhm. d'un point de vue descriptif simplement sonner les frontières sont poreuses xam mais du point de vue du besoin de celui qui trafique il am lecture bu mu ci am un peu frontière ba ma qui ci il lan laa ci mën a ba fan a commencé fan la mën a quels sont les moyens que je peux utiliser par rapport à celui qui lutte contre la drogue mhm. les frontières sont poreuses doivent me lecture à partir de l'autre côté puisque les frontières sont poreuses ils sont en train de passer par là ou bien ils vont certainement un jour se mettre à passer par là réalité mon en tant que policier taxaw de légui lan lañ fi indi mou koy indi kan mou koy indi nan lañ ko meuna emballer nan lañ ko transporter pour nga développer cette stratégie bi nga xamni en termes de prévention frontière vous, ban la indi problème wala soo démé ba xamni drogue bi mu fi en termes de réaction répressive nga xam yow nang ngay fexé ba xam ban trafic mo fi am ñan acteur du trafic bi quels sont les moyens de ce trafic là et consort et comment faire face pour réaliser que ce trafic là ne déborde pas parce que trafic premier objectif ce n'est pas de finir le trafic premier objectif, c'est de contrôler le trafic. La police et les forces de défense et de courent toujours derrière les trafiquants. Pas pour les tuer tous, pour les anéantir, mais pour contrôler le phénomène, pour que sur le plan santé publique, du déborder population ba yàq que nous sur le plan économique qui tamit intoxiqué, intoxiquer du polluer suñu économie ba def au sortir de toutes ces explications euh, est-ce à retenir que les gouvernements les gouvernants n'ont pas volonté et indiqué euh, carrément le problème ndax wax nga euh, problème effectif problème surveillant. surveillance ak les yu bees est-ce qu'ils ont une volonté réelle pour pour pour mater l'eau bu ils ont les moyens de du parvenir. tu vas parler de la volonté politique bon dafa am toujours luy Dess distance ou euh, ci sunu communauté yi idée bi nga xam di autorité politique bi mon da kay am ak li nga xam ni mom moy tax ci mu considérer que parmi les priorités des priorités il faut mettre ça c'est pas beaucoup le wala mais ñom fi ñu toll ci tal ci tal ak orienté wu ak phénomène bi ni mu tollu ak li ni moom moo koy il leur manque de l'accompagnement et qui nous la par exemple vous vous m'appelez ici on parle de ça on fait ceci mais il fallait il faut que nous dem comme Léo Occident nous avons de grandes intelligences autour des appareils de réflexion de conception de surveillance de supervision de ce phénomène là Nous devons, comme nous nga xam les la pour que nos autorités soient encadrées à ce niveau-là, pour que nous nous menons d'abord et que nous nous accompagner les services avec des orientations, des politiques comme il faut. Il y a, sur le plan multilatéral, des outils qui sont là qui dépendent des Nations Unies mais y a ay appareils la yi nga xam ni dañuy dee ci laaj ci comportement bu classique suba bureau dem ce dem ce bureau def li def soir avec la conscience que def nga sa ça ne répond pas à votre préoccupation vous parce que vous êtes dans la chaleur de l'action vous êtes dans la chaleur du suivi du phénomène il faut que nous am ay appareils qui nga de faire réagir comme ça pour que autant au niveau des autorités qu'au niveau des appareils répressifs nous avons alerté alertes yi de ce inquiétude bien, nous traduire que ci investigation yi def la manière d'encadrer les autorités mais nous traduit traduire que ci cloche yi nga envoyé toujours au service répressif pour que nous ñu souci à la hauteur c'est comme ça qu'il faut gérer des phénomènes comme ça pas autrement allah solo quel message lancé aux jeunes consommateurs de la drogue yi nga xamante ni xëy na euh, wumpuleen nañu effet yi ni loolu nga xamante ni ñu koy jël la am surtout il faut parler des des des des nouvelles drogues comme les volets et autres là. Mmh. on parle des des des des drogues classiques comme la cocaïne l'héroïne et autres. aujourd'hui le danger sur le plan sanitaire se trouve là-bas. Mmh. parce que toutes les drogues de, synthèse de ce type-là et qu'on sort sont des drogues accessibles, mais c'est des drogues mortelles. Mortelles. Il faut que je nie d'abord. Hmm. Choisir rester dans le classique du classique. Parce que l'on a fait yak déjà, mais du yak comme les drogues accessibles, il faut avoir des quantités. Et sur le plan sanitaire, c'est des drogues qui sont extrêmement mortelles li qui a une une ci ay des jeunes meurent dans des appartements et de suite mm-hmm. des jeunes qui se suicident quelque part à mm-hmm. fa une catastrophe qui se produit c'est en général la proximité de ces drogues-là et il faut mm-hmm. que les jeunes se méfient de cela Sauf qu'ils ni ils ne peuvent pas sortir de la drogue mais le mieux c'est vraiment d'aller trouver autre chose pour s'amuser que d'aller se chuter pour, pouvoir prendre son plaisir ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une solution. Parce que nous, on demain, bis dina ou bien da nga ciy dem catastrophe ou bien da nga ciy bugg génn yàlla may la nga génn si ou bien de nga et tu es enfermé là-dedans c'est un cercle vicieux quand on y est enfermé on ne sort pas. quand on y est enfermé on ne sort pas donc euh, ñu euh, bàyyiwaat xel kàddu yu am solo yi nga xamante euh, commissaire Keita yëkkati na ko ñu jaajëfal ko bu baax baax donc je pense que waxtaan bi mi ngi am solo bu baax baax ci internet yi nga xamante ñoo ñuy il est 11h dañuy marqué une petite pause dem jëli publicité daal di ñëw wëyal suñu waxtaan ak ñaari ponk yi nga xamante ne wala bokk ñetti ponk yi war a ñu war amal ci bile jotaay ñeel pencum ndaw réew déclaration de politique générale de nga xamanteni euh, donc